baaxee maanaam euh, de manière responsable et euh, euh, ban jàngat ngay def ci suñu njiit yi nga xamante ni demoon nañu foofee ca douane FMI. waaw xam nga FMI moom jaara boo bëggee dëgg-dëgg. Mhm. ah xam naa ne xaw ma kañ daal la àdduna di dox di dox di dox xam naa boo ko waxee ñu ne dégg leen rek ñii ay panafricain lañ xaw ma ay. Mhm. activiste mais xam naa ne daal. xëj na tamit mook àdduna tam lañ moo dondoo mais xam naa ni daal banque mondiale ak euh, FMI ah xam nga boo toogee nga ne ban njariñ mhm. lañ amal réew yi nga xam ni dañu am te amuñu réew yi am te amuñu te amuñu mhm. réew yi am mel ni Sénégal te amuñu réew yi am lépp luy xeetoog matière première professeur mhm. ressources naturelles yi ñu am mais sa waay amul xuwaam. France amu ko amuñu dara. seen lépp ci lijjanti lañ ko teg. France pays pauvre mais développé. pays pauvre mais développé ñu bëgg koo boole G7 bëgg a wax ne c'est la cinquième puissance mondiale koo xam ne yow béyoon na po amoo pétrole amoo dara <laughs> mais fan la France war a teg loolu man lu dul ci ay lijjanti. ci ay lijjanti rek. lijjanti rek. kese ak nappe. waaw ah. France day xool gars yi rek. ak sonal Afrique. napp africain yi Niger tollu fële xoolal nii nii way nous demandons aux soldats de waxuñ benn soldat na yore réew place soldat yi ci caserne yi la. Mhm. mais am na ay njiitum réew yoo xamante ni nii coup d'état leen ab mal nécessaire. wallaay jàpp sa askan toroxal leen ñu ne déet ni waay yow nga toog ci réew mi nga ne doo dem say mandat jeex nga ne demoo 1984 ba léegi am na ay njiitum réewu Afrique yoo xam ne ñu ngi toog 80 ba léegi. ñii 84 ba léegi. mandat à l'infini. mais mais c'est terrible. oui plus quand léegi ma ne la nit dëkk yi nga xam ne dañu am te amuñu. Mhm. yor lu ni toll ba pare ñu ne la yow amoo loo ko exploité dégg nga. Mhm. jël sa licence joxe Franck Timis jóge fa la ñëw ne moom am na ay moyens logistique moyen financier moyen intellectuel

juddul tuddul tuddul tisbaar tuddul yor-yor. tuddul timis. tuddul tàkkusaan lu dul dem ba gee di bëgg a jot mu ne noonu la tudd timis terrible. terrible. Mhm. mais gars yi yuuxu fii nii yëpp ne remplir conditions yi le code pétrolier li mu wax dafa leer le code nangam li mu wax dafa leer le code nit saa ñu ne dee jox ko mu defal cabinet waa Petro-Tim toog fii biir Almadi. géré <laughs> ko ak moom. xam nga ni kon du Macky Sall kese moo toogoon ci ay dossier <laughs> waa mais jaar imagineel yow tey lu tax ma ne la mooy réew yi yi yi amul te am. Mhm. des pays riches mais pauvres. nu ñuy def ñun ba am indépendance. Mhm. moom suñ bopp. waa FMI ñëw ne la ñun dinañ la def nangam. dañ lay jox de. waaye fi nga koy dugal ak fi ak fii nii nga ñu koy fayee hmm. fii ba ñaar fukki at sa autoroute à péage bi doo ko moom nel waaw nga ne waaw. te moo ñu daal jamono fii ba nangami at sa nangam ji doo ko moom nel waaw nga ne waaw mais jaara loolu loolu doy na waar. dañ naan 1960 avant 1960 ba tey lii la tubaab yi di dund ak ñun. foo leen déminé ñu gas suul fu ñu la déminé bind ci livre yi jàngal ko gone yi ne yéen seeni maam nii lañ leen doon tayee ci gànguk lem teew benn instant dóor nga ñoom seeni maam ñu bëgg koo dëkkee ba su est-ce que yëngal ni subvention bii def ci gaz bi nii mhm. ak mburu ak courant ak gaz ak ak ndox ak léegi pour suñu nguur yi mhm. <laughs> buñ subventionné woon tey mburu mi nii ba ne léegi jëlee nañ ko cent cinquante indi nañ ko cent vingt cinq. est-ce que xam nga ne FMI day toog ba ci àgg rek ne ko sa subvention bi nga def ci mburu bi dindi ko. Hmm. est-ce que ne gaz bii ñu naan ay quatre mille quatre mille cinq cent lay jar ni jigéen ñi di ko toggee. Hmm. tey nguur gi bu jëloon décision ne da koy subventionné ba gaz bi di jar par exemple trois mille wala deux mille cinq cent. Hmm. ne moom moo koy subventionné moom pour dimbali population est-ce que xam nga ni institution yooyu dañuy toog rek. ne ko eh dindi ko nga naan da yërëm sa askan. ñun dimbal lii ñu lay dimbali nii. parce que bu subvention bi ñëwee état bi kii ko moom xaalisam dootu ko mën a jox état bi du mën a amati ay avantages ci ci ci dëkk bi. d'accord ak ñaata at. ak ñaata at. Hmm. ñaata at ngay fay yow loolu. yow lii ñu la jox nii nii nii rek rek rek rek rek hmm. ñaar fukki atu yàlla nga ñu koy fay yow mat le woon naan da ngay dimbali da ngay dimbali sa askan. wallaahi waaw. waa mais ñin ñin fu ñu jëm déggoo li ma la expliqué léegi ci club de Paris club de Paris bii nga xam ne at bu ne premier ministre bu toog di nga wutali. club de Paris waaw. pour les privés ak ñoom seen ku nekk indi ñëpp di la lebal ñu naan waaye nous sommes à hauteur de sept mille milliards vraiment démb ak tey rek démb ak tey rek on a collecté quatre mille milliards ba pare di ko tiitaroo. gaa yi ne uti ji na xaalis indi ci réew mi. ba non ba pare ngay jubilé. ci bërëb bor boo xam ne yow génération future yi tey rek ñu dee nguur gi di ñëw bi ci toppaat bi ci toppaat maanaam fii ba juróom fukki atu yàlla jaara est-ce que yéen nga ne ñin moom sa waay ñin dañuy toog nii rek à moins que ñu jékki rek am ay punkal yoo xam ne bi ñu ñëwee dañu ñëw rek ne dañuy def rupture par force lii moom dina rakk mm-hmm. comme tey taxawaay bii nga xam ni moom la ñoom soo ko taxawee. Mm-hmm. nga taxawee ko tubaab yi itam am neneen ñu taxawee commence di la xeex ngay am ay problème mu salaire. Mm-hmm. waajay dem waajay dem. Mm-hmm. ñu yore woon ay salaire presque quarante milliards ngay dem léegi ba ay cent six milliards. <laughs> trop ah man man man man man man tubaab yi tubaab yi daal sawaay boo bëggee dégg dëgg li gars yi doon wax rek nañ leen xeex. pour moom suñ bopp am indépendance indépendance nekkul am hymne national bu fi Senghor bàyyi ak drapeau soo la république. ñee mm-hmm. ñee dugg na fi gën a. indépendance daal Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nee na mi ngi tàmbalee ci moom sa bopp ci lépp. Mm-hmm. indépendance sociale. Mm-hmm. boo bëggee lekk lekk. États-Unis ñaar lañ njëkk a réglé ñoom balaa daraa xew. la démocratie ak lekk. ak lekk buuf. <laughs> kese. boo ko assuré lay sa askan kay dëkk ba am stabilité. ku bëgg a wax dara wala manifester ñëw ba buntu Maison Blanche siège Nations Unies ndaje mi assemblée générale chaque année day am des états. Mm-hmm. mi mi mi activistes yi àdduna bi yëpp ay dagg tike ñëw ñëw ñëw ñëw yor seen i seen seen i mais fii place de la nation bii ngay bëgg dem laa lay wax nii tubaab yi ñoo nekk bitim réew de ne ñooñu ci loolu ñu bëgg a ñaxtu noonu warul jub kaw de affaire pétrole beeg gaz bi pétrole ak gaz bi lu ñuy gérer ci suuf la de. Mm-hmm. de xamagu leen pétrole ak gaz warul di tàkk ci kaw de. seen almet yooyu ñu yor. eh bu ñu jege pétrole bi de bu ñu koy jege réew mi tàkk <laughs> ba léegi boo amee pétrole sax les occidentaux dañuy développer benn politique gëmloo nit ñi ne yii dëkk bu am pétrole gain day tàkk. day tàkk xeex bi dañ fay dugal ay armes xeex indi fa ay rébellion ba léegi ku am pétrole sax yow da nga naan. sa xel du xel du dal pétrole yàlla mu jóg. Mhm. yeneen dëkk yi amuñu pétrole. ko bëri. États-Unis seen pétrole. dañ koy denc. président bu ñëw ne c'est pour la génération future waaye ñoo ñooy génération future plus de cent ans ku ñëw ne c'est pour la hmm. génération future waaye xanaa ñii ñoo bëgg seen alal seen politique économique ak a baax génération ku ñëw dem ku jëndi ku ñëw da nga naan xoolal pétrole bi c'est pour la génération future mais mais Ameth euh, ci ci ndaje FMI bi dafa am benn genre polémique bu nga xamante ni man euh, pour dire vrai rek topp ma ko bu baax ndax opposant yu yu yu bees yi man duma leen topp seen ay wax mais dama gis ñuy jubilé ci président su euh, ex président bi fi nekkoon Macky Sall te ni voilà FMI dañu daal di wax ministre ya fa demoon ñu revoir xom seen ay coppite yeneen yu ni mel que ni président Macky Sall moo nekkoon doon négocier mbir yeeg yeneen yu ni mel lan nga ñu mën a wax ci loolu bu fekkee am nga ci lu leer. man de mënuma ci mënuma ci mënu comme que nekkuma fa woon mënuma ci wax dara lu dul ki nga xam ne ngeen moom lañ fa yónni mhm. moom yi bu dee waa kàppee ko yónni ñun waa réew mi Abdourahmane Sarr lañ yónni mhm. le ministre koom-koom dëgg loolu dëgg waaw ministre économie mhm. ak Cheikh Diba finance population Guédiawaye kii déggal maan Guédiawaye <laughs> Guédiawaye tiital na la nag <laughs> population wu Sénégal ñii lañ fa yónni tàmm ci ADN bi la ci deret bi la dégg dégg léwén sax il faut mu wut licence su nawetaan football laa ah. damaa gëj a football nawetaan géejawaay mu ne nawetaan yi di ñëw dégg dégg yow yow kii jaar maam jaar ñun ñañ yónni la wax man de moom laa mën a dégg. waaw waaw kii nga xam ne nag dañ ne xaw ma kàppee ko yoon yónni léegi pour muy rataxal ak a defar ak xaw ma lan ak lan ak lan ak lan ak lu mu fa defee Walfadjri bind na ko. Mm-hmm. teewaayam bi foofu dafa xaw a kii quoi dafa xaw a kii dafa xaw a agaçant xaw a kii euh, embarrassant dafa dafa dafa dafa kii daal dafa. waaw ministre bi ministre yi. Mm-hmm. benn internet nee na même karkanamu ministre bi Abdourahmane Sarr. dafa dafa belliwul waaw belliwul waaw. Mm-hmm. dafa gis nañu. c'était gênant ñu koy ñu koy ñu koy ñaaw gis nañu Cheikh Omar Diagne. ñaaw na lu une présence gênante. waaw teewaayam bi foofu bu ñu waxee ñu ne ñii ay nihiliste lañ dafa ñëwoon rek pour dimbali leen non ba mu fi nekkee la ñu waxoon mu dimbali nit ñi. nekk na fi la mu mën dimbali nit ñi dimbali na leen ko li mënul dimbali nit ñi dimbaliwul leen ko la mu waroon dimbali ni defu ko tamit bay ñeegee ba ca njombaxtal la. Mm-hmm. dañ koo sanctionné moo waa këram. Mm-hmm. jeex na dem toog waaw léegi nag bu doon dafa dem nekk secrétaire général des Nations Unies xam nga ma la wax. Ah. wala yooyu sax ñu ne wala ah, oh, oh, oh, francophonie. Ah. comme Abdou Diouf. Mm-hmm. ñu ne leneen mais lii nga xam ne français yi fexe nañu liggéeyante liggéeyante liggéeyante ba i nekk ci yeneen action action yoo xamante ne nii bu demee daje fa ak nguur gi présence am rek bon. te moom bu toogee da koy da koy gis. da nga koy séen dafa kii waaw dafa kii kay da koy gis. sëñ ba pare sugu. dafa lan sugu sugu bu jeexee rek jeex na. bu jeexee jeex na de. wallaahi. ah ñoom li ñu doon joué élégance dafa am solo de. non non non c'est c'est loolu élégance la. Mhm, solo am na yoo xam ne nag inélégance la. Mhm. déggoo ma de. Mhm. bon xam nekkul ci sol costume ñuy toog ñu naan non ak di joxe ak yooyu. xamali ma la jaru ko en tout cas ministre bi daal nee na c'est faux tey ubbil wal fajari bi mi ngi ci revue de presse waaw wax na ci de hmm. ministre bi wax na ci affaire boobu noonu ñenn ñu doon naan waaw Macky Sall moo dem dimbali ministre Ousmane Sonko koy fële seen diggante ak FMI parce que dañu leen bindeel na leen euh, le nouveau régime appelé à revoir sa copie ministre bi ne leen c'est archi faux c'est faux c'est faux faux na loolu amul Macky Sall nag peut ñëwoon na fa ci beneen cadre nee na 4P léegi ndaje xaw ma Samba Kodo Ndiaye ginaar ak neenam mais quant à ñëw foofu pour dimbali nguuru Sénégal gi ministre bi wax de. ne ko <laughs> ministre Abdourahmane Sarr nee na. c'est faux c'est faux. loolu maanaam du dëkk dimbali wuñ leen. lu muy dimbali. dañoo soxlawul ndimbal sax ba naa ci ci moom. lu ñuy dimbali. yow réglé woo réglé woo réglé woo réglé bañ ne la. ba dem bañ ne la des ngay réglé. nga da ngay réglé waaw suñ la nee réglé looy réglé. dama xamul bu <laughs> buñ ne ko réglé lu muy réglé. moo tax ministre nu ne ko. c'est faux. du dëgg. du dëgg. loolu amul waay. am na solo bu euh, amoon sax moom ah. dafa war a génnee communiquer sax ne loolu amul. Macky Sall ci boppam su doon moom dafa ñëw dimbali senegal ba nga xamante ni nii koppar gañ fa wuti woon wala nañ ko bindee woon baaxul mu koy jubbante en tant que koo xam ni. Mm-hmm. du novice xam na même bu gars yi ay militants waxee ne ah Macky moo sauvé gaay yi. Mm-hmm. élégance mm-hmm. mayu ko moom. Mm-hmm. muy toog sax di seetaan ñu naan am na ak amul. Abdoulaye Wade keroog ba ma ko fekkee Versailles dafa ne. bu mu ne ma du wax nag ci affaire ma ne ko ah. ne boo bëggee ay affaire Afrique ak yii rek de parce que bëgguma ko gêner. déglul de. ne sama dernier conseil des ministres dama woo ministre yëpp. neleen comme kum ci woo pour nga jàppale ko nga jàppale ko mais pour attaque nii nii nii nii nii nii. Mhm. mukk ci këri àddina bu ko kenn attaque. nañ jiital ko mën a dimbali nga dimbali ko. Mhm. mooy ah, am na solo galanterie. Mhm. mais yow salaamaaleykum maaleykum salaam rek ngay wut ay prox ndolloog restez chez vous. <laughs> professeur mais pourquoi buruxlu aussi tamit bëgg ne di nga bokk par force. ci ñoo xam ne yow ñoo la fi génnee wala ñoo xam ne àndoo woon ak ñoom. xam nga yaa ngi ci burux lu après dinañ ñëw ci ci axlu umra bi. yow euh, euh, gis nga jaara ban euh, jàngat nga ciy def bon FMI bi soose naa jàngat bu ma ci def <laughs> après ma ma ma defal soose honneur. Mhm. pour vite gis nga dañ lay jox xaalis wax la ni ñu koy fayee. waaw ak foo koy def. ak foo koy def mais yemuñu fa dañuy continuer di la ridiculiser di la ni yow yaay le vingt quatrième ou bien le vingt cinquième pays le plus pauvre au monde. di la toroxal pour yow nga gën a mën a manifester le besoin dem pour ñu lay jox xam nga dafa am loo xam ne tey jii nii mais mais ay mi ay banque mondiale ñan ñoo ko diriger. Mm-hmm. est-ce que l'Afrique est représentée là-bas waa léegi yow ñi ko diriger ñoom c'est des structures yi nga xam ni ñenn ñi ci la ñuy làqatu. pour mën a yow gën a continuer di la noot gën a continuer di la exploité ak gën a continuer di bénéficier yow de tes ressources. Hmm. waa léegi ñu ne daal ñun suñu koom dañ ko war a mën a jël rek tënku ko ci wàllug àbb ak delloo pendant ce temps monsieur le maire waxaat na ko léegi ñun nous sommes des pays riche suñ nee riche nag riche en ressources maanaam li ñu am suñ ci yemoon waa exploitation am na yoo xam ne peut-être amagoo possibilité pour exploiter ko mais su dee yow jaara man damaa am lii mu leeroon ne mënuma kaa exploiter moo woo la mais yow kese nga war cee gis sa bopp y'a problème mais ñun ñaa ñëpp dañ ciy gis suñu bopp. yow la nga exploiter ak man mi nga xam ne manque moom dañuy xool nan la ñuy demee ci benn coopération boo xam ne dinañu mëne vers des vers des choses meilleures. Mm-hmm. bu ko defee. encore une fois ñun bu dee suñu endettement bii nii nii nii nii nii wax dëgg yàlla dafa critique nañ xool daal ay.